mu la muskalu yow mu la muskalu boo muuroo mu ne la xolleen muraayam ba. Hmm. boo dangalee mu ne xolleen dangalam bi. loolu a suñ jikko la mais li ma la bëgg a wax nii li ma la bëgg a wax. mais non non mais waaw s'il vous plaît ñu dégloonte s'il vous plaît. est-ce que je peux waroo ko waroo ko waroo ko waroo jëw. waroo xalaat déglante s'il man point bi may ñëw waaw Oustaz bismillah ca kii lay wax na ko turu jullit am na existé na turu arab am na turu jullit am na hmm. comme ñun suñ tur yi bu njëkk ay pendaak kumbaak cendeelaak ay maam góor ak yooyu ay mbisaan ak hmm. yooyu ay turu ceddoy séeréer la bu njëkk hmm. yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu ñëwee daf daan laaj gaa ñi seen tur yooyu ñu indi turu ceddo yi muy islamiste muy islamiste tur tur yi am na ko tuddoon Seydul Xayli al xaylu mooy fas fasu naaru góor la ñuy tuddee xayla saydul xayli mooy saydum fas yonent bi ne ko changé naa ko tuddee ko saydul xayri xayri mooy lu yiw mhm. ndax daan baptiser nit ñi di changé tur yi di ko islamiser mhm. kon turu julit am na comme turu arab amoon na mhm. yaa ngi dégg su ko tee encore moo wax ne boo amee sa doom yow en tant que musulman na nga ko tuddee tur wu rafet turu ceddo yi la yonent bi doon bàyyi ñu dindi ko parce que tur wu ne nit ki day roy ko tuddee wolof Njaay day wax ni nit ki buñ ko tuddee nit dina jël ci moom juróom-ñaari jikko dëgg la yow ñu ngi ci jamonoy lislaam ñu tuddee la ceddo est-ce que jikkoom yi dëppoon ak jikkooy lislaam nañ la tuddee Ousmane kan mooy Ousmane kon tur l'islam am na. est-ce que kan su ah, ah. loolu sax ngi am ba léegi. ndax ngi xoolee ay am ndax ndax loolu mi ngi gis juróom-ñaari jikko ci sa turam loolu. mais eh, loolu formation la wala fa ko wax. mais nit ki jikko ci yar. wala fa ko wax de. kon <laughs> wala ko nañ ko bàyyi wala fi. nañ ko bàyyee noonu waaw ayca kilifa. que am naa benn mais waa jooju xamalu ma ko lu dul moom ak am naa am naa copain bu tudd Bamba ak ay bu tudd Mouhamed mais ñoo dëng ñoo gën a dëng bant waaw loolu la ñuy wax parce que soo waxee naan tur bu màgg boo ko tuddee nit il faut mu tënk non yar bi la yar bi la yar bi la euh, ndax mun ngeen d' ak man ni àddina ni mu doxee nii maanaam euh, diine ni ko doon respecté di ko def euh, ci at bi yëpp ah, àddina it moo dox ba mën nañu wut suñu système mu bopp c' est à dire ay jeunes lañ dañoo amee yeneen occupation peut être amuñu assez de temps pour respecter suñu religion comme ni ko war a defee alors bu ñu amee temps bi rek ñu ñu ñu ray ci suñu bopp weeru koor peut être duñu liggéey dinañ am assez de temps ñu ñu gën profité jégalu sunuy bàkkaar. waaw oustaz man man man man man man na na xale jigéen ñi comme en particulier nañ man maa teewal xale jigéen ñu ñu ñu a sóobu ci li góorgóorlu ci lislaam mm. léegi nit yi tamit nañu gën a góorgóorlu ñaax seen bopp dugg ci lu seen yoon nekk bokk leen ci nit xam nga yow si aspect diine ji am jot rek lañ ci dugg soxna si waaw far buñu dem waaw ñoom lañu boîte bu tëgg sérieusement Assane Ndiaye woote woon yaa ngi leen di jiñ de am jot mais ñi dañu c'est la réalité ñi leen di woo soxna si génn ba xam ne soxna si sans weeru koor dafa am ñuy woo xale yu jigéen yi bu dul weeru koor day am ñuy woote waaw bu weeru koor jotee dootuñu woote dootuñu woote ña doon woo xale yu jigéen yi bu weeru koor jotee bu weeru koor yi passé nañ leen bañ a woo. nañ leen bañ a woo te te li ñu ñu ngi woo la. non non ñu ne weeru koor la ñu ne. boo leen woowul ñu woo la mais daal ñi doon woote la nañ bàyyi rek bu ñu wootewul daal xale jigéen du ñëw. merci xale jigéen ñi ñoo sëg wante daal bu fekkente ne si góor gi nga nekkal moom gëm moom nee na nee na jullit la moom mais mooy dëgg yéen dañ leen mën yéen góor ñee leen mën a tàggat ci ci dina yéen kilifa yéen bu fekkente ne si jigéen dañ ne jigéen ñi duñu respecté lis respecté wuñu l'islam respecté déglu ma déglu ma déglu ma déglu yéen laa wax yéen xale jigéen jigéen ñi laa la wax kay lu leer laa la wax jigéen ñi ba tey déggoo ma de eh, léegi bu eh, fekkente ne si góor gi nga nekkal ni jullit la dala bëgg a teg ci yoonu <laughs> siraatal mustaqima en dehors de corps war na la mën a wax bu heure julli jotee mu woo la ni la jullil di la a qawaamuuna ala nisaa yàlla nee na góor ñi ñoo war a doon kilifa yi kilifa yi est-ce que mat nañu pour mën a yar attention foofu laa nekk xale mat góor day doon kilifa may mu tuuti góor dafay doon kilifa góor dafa war mat di teete xale yi jigéen ci siraatul mustaqim gannaaw boo deferoo ba noppi bëri na lu ñu naan xale bu jigéen xale bu jigéen lu mu def góor ñi ko ko defloo ñooy responsable ah bu dee xale bu jigéen jàppee ko comme sa bu dee jàppee ko comme sa doom jàppee ko comme sa sœur jàppee ko comme sa bàjjen te xam ne jigéen la dafa feebal ci xel mi feebal ci yaram wi nga jël ko teetu ko teg ko ci siraatul mustaqiim jàpp ne bu ëllëgee mooy jur un type sénégalais bi ngeen soxla yenn di ko wax jigéen ñi ko jur kon il NTS jigéen ñi leen di jur kon il faut jigéen ñi tey ñi góor yi tey jël leen teete leen teg leen ci saratul mustaqim mais bu góor ñi dëngee di woo jigéen ñi ci pénc ya ca ca ca fecc ya mais kon jigéen ñi mais góor ñi la. bu ñu la ca wooyee rek nga wuyu si. voilà mais est-ce que bu ñu la ci wooyee rek nga wuyu si. waaw bu ñu la yow yaay góor yow yaa war a nekk kilifa war a jiite. maanaam damay dama koy tënk yàlla bi mu defaree euh, maanaam mujj daf ko ci góor. mu dee bi mu ci góor góor ga dee. mu ci jigéen jigéen nga xam mu kii moo àttan lii. xel muy ànd ak nu tukkee jigéen ba te tourné ko tam def foofu na ko détourné hmm. non mën na ko teggi hmm. maay. non ko xam nga fan ma ah, ah, ah, na lu nekk ci yow. di jigéen ji mais jigéen ji leen ci moom dañ ko ciy def. boo ko ci defoon nu mu nekkee. ñi ko njëkk a def mooy waajur buñ ko ci defee kay ba pare bu dëgëree société bi ah, bu fekkoon xale yu bëri normal trois trois types trois types la bi la sa kër di defal sa waajur bi mbedd mi di defal ak bi sa école di defal mais bu fekkee ne boo génnee ci société bu fekkee boo génnee ci mbedd mi tase koo xamante ne si naka su dul noonu éducation yàlla rek yàlla yàlla moom mooy dë da gis koo xamante si ki ki wax na ko doomu kilifa lay doon ni ngeen di waxee déglu ma wax la déglu ma déglu ma déglu ma déglu ma déglu ko déglu ma da ngay gis koo xam dañ naan dafa dafa judd ci gileem nàmp ci mbaam da ngay gis koo xam ne dafa judd ci kër famille bu baax mais des fois def naka su dul noonu du julli du woor deful lenn l'islam temps nit ñi dañ naan dañ au lieu que ñu blâmer moom famem la ñuy blâmer pourtant famem def na ko éducation bi fa war parce que jàngaloon na ko alxuraan li ñuy teg ci ci ci ci jullit yëpp defloon nañ ko ko mm-hmm. mais bu fekkente ne si bu génnee li éducation bi famille bi parents yi joxe bu demee ci biti société bi au lieu mu renforcer éducation boobu mais da koy jéem a détourner teg leneen ci xelam bu boobaa li li famille bi def day détérioré wu ndànk par ndànk au fur et à mesure muy ci société bi di dem école noonu lay dem bi ça devient naas dootu ko su ma déggee ni ngay waxee day mel ni yéen doo responsable wu da maanaam daal li daal seen dafa mel ni mais je te dis que instant dans ce pays là les femmes sont plus responsables que les hommes fi ñu toll les femmes sont plus responsables que les hommes dans tous les plans en ce moment au pays ce sont les femmes qui sont plus responsables waaw jigéen ñi am na sa micro attention ah mais dafa nag maa ngi ñëw maa ngi ñëw tuuti dafa ndànk man maa ngi liggéey ak ay man maa ngi liggéey ak Mohamed ah. ñun ñu ngi liggéey ak ay góor di liggéey ak ay jigéen waaw ñu ngi responsabilité góor ñi responsabilité jigéen ñi yéen xam ngeen ni jigéen ñi ni ñuy sonnee seen farlu ak niñ taxawoo ci seen liggéey yéen ñëpp leer na leen moo tax ma ne la niñ leen niñ leen di tàggatee ba ñu nekk góor liggéey ba ñu gën koy sàmm bu ñu leen tàggatee ci dina ñoo ci gën a xër parce que yónneent bi parce que xam nga li ko def jigéen ñi bu ñu leen defaree rek am Sénégal gu gën fii yëpp mais xam nga fu ma dul ànd ak yow ci defar gi waaw olof nee na waaw nee na waaw mën ngaa bot ku nekk def nit ku amee béjjën ci dënn waaw borom béjjënu dënn ko ko jigéen ñi lañ yor may bàyyi ma ñëw rek <laughs> ñaareel ba mooy da di da ngeen joxe exemple fàtte fàtte ñett <laughs> waaw bàyyi ko rek waaw non man bala maa gën a kontaan ma gis jigéen ju dawal oto mhm. li ma gën a bañ mooy jigéen buy jooy mhm. li ma gën a bëgg a gis mooy jigéen bu dawal oto mhm. kon xam nga man ñu leen fonk la mais dama ne yëf yi ma nga commencé d'abord ñetti facteur sama gis-gis booy nekk xale di jàngi école fa lay doore li l'islam santaane nañu koy solol jigéen léeg-léeg école dañu koy bañ muy benn kon changement yi commencé na foofu ñaareel ba moo di xale yu jigéen ñi ku ci gimmi am as tuut dem ber sa appartement bopp. Mhm. nekk yow kese gisoo góor gu lay wàññi gisoo papa ju lay wàññi gisoo yaay ju lay wàññi. waaw ah, loolu nag ci mais loolu ci yarba la attention du ñëpp de yarba la ñetteel ba oustaz dañuy baax bàyyil ma daane non non là je suis pas d'accord man dama gis xale yu jigéen ñu am situation dem taxaw taxawaayu taxawaayu taaw dama gis xale yu jigéen yu ah, jàng am am situation taxaw taxawaayu taaw bu góor nekk seen kër di toppatoo seen yaay seen bay pour du egg du ah, ah, eggale étude am ah, parce que leer na ko ni léegi débat na moom moo ko war a gérer te terewul day am ay <laughs> numéro ay góor këram vraiment c'est important